gaañ yi nuyu naa leen ziar di kontaan ci wuyu si bi ngeen ni wuyu si alors tey nag li waral ndaje bi mooy dañu am bés incha allah le juillet fii ci Grand Théâtre ànd ceeg euh, Madoki production As donc euh, Habib de grand promoteur euh, ñu ngi def ay événements au Sénégal mais ils sont plus à l'international donc ñu xam ni ay sénégalais lañ yoo xam ne yàgg nañu représenter Sénégal partout dans le monde ñëw nag bëgg sampu samp carrément investir au Sénégal commencé ak Paama ak Sabet incha allah bare songu yeneen artist yi donc euh, may woo di tàllal loxo tout le Sénégal ñëpp ñëw jàpp ci mu réussir ndax gars yi mën a ñeme songu suñu yeneen artistes yi incha allah le rendez-vous c'est le juillet ci kàttanu yàlla Paama ak Sabet. tous les artistes du Sénégal. ñu ngi monté benn spectacle boo xam ne euh, incha allah euh, le 6 lañ ko bëgg njëkk a présenté ci lañ ko bëgg njëkk wan nit ñi xool seen appréciation parce que ñun suñu liggéey moom ñuy togg rek ñooy am quoi dañuy dañuy dañuy togg rek après ñu jox nit ñi ñoom ñooy apprécier bu ko defee ñu mën a ñu mën ko orienter mën ko internationaliser euh, Sabel moom dafa voyager je crois que waroon na woote pour waaw euh, donc euh, ñu xamee ko noonu man la ak Sabel incha allah avec tous les artistes donc gars yi ñu ngi ci background bi di ko waajal Alpha Momo ak famille bi yëpp. donc euh, maa ngi leen di maa ngi leen di jaajëfalaat. première question bi mooy. waaw ñu gis ni benn moment waaw loolu loolu dara maa ngi fi maa ngi doon liggéey euh, maa ngi tëju woon di liggéey rek je crois que bu ma paree pour génnaat. ah maa maa ngi nii xam nga génnaat naa génne nañ benn produit ñu ngi joué ñu ngi ñu waajal événement ñu ngi ñu ngi waaj a génne yeneen produit yoo xam ni ñu ngi ko doon liggéey parce que à un moment donné dañu yàlla dafa dogal ñu signé deux maisons de disque donc euh, euh, il a fallu que ñu tëju pour liggéey ci yeneen registre liggéey bu baax baax. nga ma dafay répondre sa deuxième question musique sénégalaise amul musique bu ko gën amul musique bu ko dàq Sénégal artistes yi fi nekk amul artist bu leen ëpp talent ci monde bi léegi nag il faut benn walla ñaar wala ñett ñett rëcc ci ñun xam nga yéma fexe buuxante internationaliser affaire yi may profité aussi ci occasion bi di euh, di di ñaanal suma frère Sidi Diop Zénith bi mu jëm yàlla may ko ci ndam di wax ni aussi euh, moom mu ngi waajal événement bu mag xam naa dina ko annoncer bientôt yàlla na ko ci yàlla may ndam alors euh, buñ ko buuxee rek buñ ko buuxee buñ ko jaaree fi mu war a jaar structurer ko bu baax formaliser ko rek incha allah dinañu percer ñun ñëpp à l'international donc il suffit que kenn wala ñaar wala ñett percé rek dafay ubbil ñeneen ñëpp euh, ci ci marché musique mondiale donc euh, yéen tamit la press et la population sénégalaise ma leen di invité ñu gën a booster artistes yi ñu gën leen encouragé ñu ñemee songu leur concurrent à l'international parce que artistes sénégalais yu bëri dañuy parfois dañuy ragal dañuy am dañuy am ay xalaat yu bëri parce que euh, sunu population adapté wuñu carrément ci nan lañu war a seen artiste mu percé au international donc liggéey bi ñun la ak yéen te lu jot yomb incha allah. oui Nigériens yi j'ai beaucoup de respect pour eux ndax liggéey bu rafet bi ñuy def. ku ne xam na ne tamit dafa am lu mu bokk ak ñoom muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu mais ñu leen dàqale musique foofu ñoo leen ëpp ay tourneuru musique ñoo leen gën a culture seulement que nag ñoom dañoo nangoo à un moment ay at ci ginnaaw ñu booloo les experts de leur musique booloo liggéey d'accord ci benn benn tournure benn registre te lii dañ koy dañ koy fexe mu percer à l'international booster seen artiste loolu nag ñun ñun cohésion boobu amaguñ ko parce que Sénégal xam nga gars yëpp dañu indépendant donc ku ne dañu bëgg a percer de son côté mais euh, bés bu ñu boolewee ñu liggéey suñu tournure yi tey ku dem ci euh, ci ci culture culture lébu wala alpulaar wala mandeng wala manjak ah wala séréer wala mu mën a doon lu nice jóge fa man je suis pas ñuy copier parce que booy copier da ngay copier ku ñoo leen ëppale foofu mais bés bu ñu gëmee sunu bopp rek bu ñu defaree yàlla mun nañu may ñu leen may xam naa nag liggéey boobu du doon ci at bii du doon ci at yi mais bés buñ ko waxtaanee ñun ñëpp rek liggéey ko incha allah musique sénégalaise dina mën a dina mën a sori ki nag benn benn femme benn traître la waxuñ ñëpp ngi lay fay. ñu ngi ñëw te incha allah rabi ñu ngi waajal bés bi bu baax sax a baax a baax a baax bokk na sax ci li tax ñu déplacé wu donc euh, yàlla baax na ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah waa presse bi waa presse Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen a ngi def liggéey bu nice donc den wax ne gars yi na jëkkuwaat allah man kay yàgg naa wéet.